ci tàkkusaan te mm. yàlla gëñ ci wala asri ne lisaani lafii xusri mm. yàlla ne maa ngi gëñ ci tàkkusaan wala maa ngi gëñ ci jamono yonent si yàlla Muhammad sallallahu wala maa ngi gëñ ci jamono yëpp ak lu ci mën a xew rek mm. bàyyi moom ci tàkkusaan boobu ci la judd waaye nag yàlla dafa wax ne wala asri ne lisaana lafii xusri ne lisaana lafii xusri ñu ne maa ngi gëñ ci tàkkusaan wala maa ngi gëñ ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne doomu aadama yëpp a lilladiina aamanu mhm. mu def nag istinaa def setti mhm. ñëpp ñoo ci bokk waaye mu nekk lilladiina aamanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri loolu mhm. ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey jëf farata yaag naafile te ñuy dénkante dëgg ak muñ ñooñu rek ñoo terte mu wax na ca bayti boobu may wax boo ko ne wax ne wa ahlu zamani kulluhum faasa raqiya hmm. sama ñun jamono ñëpp ñoo texe si waa man xalaa nax ji asira sama ñun jamono ñëpp ñoo texe kon génnewu kenn hmm. waaye mu ne e, koo xam ne da bañ sama yoon kon Cheikh Ibrahima Niass moom radiallahu taala anhu hmm. nga xam ne moo judd ci rajo loolu dañ ciy sant yàlla la weeru sant yàlla la weeru xéewal la hmm. ndax weer la woo xam ne ba mu juddoo suñu roxo yëpp yi naroon a sànku yëpp moom moo ko sobel hmm. bu Juuf mooy katam bu yéeme boobu nga xam ne dégg nañ ci mag ñi ñu nettali ne bàyyi wax na ne ci làmmini Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu la daan wax hmm. moom wax na ne atam juma biddiwu ca fenkoon am na mbóoti mbóot keroog la mbóot wàcc soo daan keroog la ngir wàcc sola keroog la ngay wàcc sola atam juma juma ñu ne benn pël la woon boo xam ne dafay ñëwoon fii ci jamono yooyu Saalum nag moom lañ tuddee atum juma at moom moo toll ak mille neuf ci la bàyyi juddoo gane hmm. si at moo tax ñu ne atam juma ñu ne biddiw boobu nag moo sowel suñu roox yi kon sant war na hmm. biddiw boobu juddu muy biddiwam njub biddiwam leer biddiwam defar addina hmm. mooy biddi ba juddu woon mooy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ba mu juddoo rek lañ xam ne dëgg-dëgg mbër judd na ba mu juddoo rek lañ xam ne dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy sobeel xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam judd na ci hmm. moom Ibrahima Niass radiyallahu anhu kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax mu judd nag ci diggante ñaari baay yu ñaari waajur yu kawe suñ maam maam alxaaji Abdullahi ak suñu maam maama si jànqa hmm. maama laaj Abdoulaye moom nga xam ne waykat bi wax ne bihaa bihaa ne bihaa talaqa min abihi ilman min abihi ilman ñu ne dajee na ci baayam ci baayam la jëlee xam-xam baayam moo ko jàngal xam-xam mu dem ba ci yàgg mu wax ne moo ko yar tamit waaye wa tawalla ikma moom méngoo tamit ak xam-xamam ikma kon lépp lu mu jàng baayam moo ko jàngal alxaaji abdullahi radiallahu jàng nekk koo xam ne lim jàng xam na ko lim jàng jëfee na ko baayam mooy kan mooy alxaaji abdullahi nga xam ne waaye ci boppam moo ko tagg ne jaada zamaan bi cheikhin naasihin alamin wala yusaabiquhu fi jahri bil mu ne jamono tabe na may ñu góor mel ni alxaaji abdullahi radiallahu anhu muy bu baax sëriñ bi laal bi sëriñ bi te kenn du rawanteeg moom alxaaji abdoulaye moom radiallahu taala hmm. moo ko moo ko moo ko jàngal moo ko xamal lépp lu mu xam waaye ba mu jàngee tamit jëfee na lu mu xam jàngal na ay nit jubal na ay nit eh, eh, defar na leen fekkoon na diine ji ak su yonent bi lépp ràpp waaye moom mooy ki xam ne moom moo ko rafetlu Euh, magam ju baax jooju muy alxaaji Mouhamed Zeyn bi nga xam ne damay wax ne mbooleem seede yi nga xam ne boroom xam-xam yi def nañ ko ci bàyyi lépp neex na ma waaye bi ma ci gën a neex mooy bi nga xam ne moom la alxaaji Mouhamed Zeyn bi defal bàyyi ndaxte man euh, koo xam ne danga bokk ak moom benn bàyyi bokk benn kër gi ngeen juddoo bokk benn kër gi ngeen yaroo ngeen bokk kenn kenn ku leen jàngal ba ngeen am xam-xam xam lépp hmm. kooku magee la fukki at yu mat sëkk seede na yaa ko raw wax ne fa nahnu nashhadu lahu bilsadqi wa nahnu min awlaadihi fi lxaqi wala bilxaqi ne ñi ngi seede ne yow Cheikh Ibrahima Niass yow yaa ñu raw hmm. waaye ñi ngi seede ne ñun say doom lañ ci dëgg kooku nag ba muy tagg bàyyi tagg bàyyi tagg bàyyi ba ci yàgg daf na wax xat jëddida diina hmm. waayda man daras wa sunnat al muxtaar min bani naba hmm. alfa tariqa cheikhna tijaani eh, bi qut eh, bi qutrina saqitat al mabaani hmm. faramma min bunyaanihi maa qad hudim wa taala fi jawwihi binaan kal alam nee na yow yaa beesal diine yow cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu gannaaw ba diina ji ràppee yow yaay ki nga xam ne yow yaa ko beesal hmm. sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yaa ko yow itam yaa ko dundal ndax sunnaa yonent bi sallallahu jiitu baay di ñëw lu bëri dafa rapport hmm. waaye moom mooy ki nga xam ne moo ko réparé bokk na ci rek julli de xabdu te yonent bi daf daan xabdu waaye bàyyi moo ñëw dekkal sunu sol bind ci téere képp ku ko wéet rek boo liiree téere boobu da nga xam ne dëgg dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon xabtu da nga xam ne xabtu mooy sunna loolu nag bi loolu loolu def na ko topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp yonent bi ci léppam ba wax ne fa namshi ala nahjihi sawiyatan nutaabiuhu fal jidd fal kullu jiddun jiddun mutabai bàyyi mi ne daneen dox ñin ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daneen ko topp te daneen fatlu ak góorgóor loolu topp yonent bi fa in azza luqyaahu fal aqdaamu daiman ala sunnati lhaadi ala gayri moyid nusalli kama kaana nabi musalliyan nasuumu kada naqfu sabila sumayda wa nunfiqu laa nubqi nuridu siraatuhu naxujju ka xajji lhaashimi mutabbaci bàyyi mi ne su fekkee ne jafe na ñu daje yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndëgg yi moom ci suuf naa yonent bi lay nekk ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ci lay nekk waaw su naa yonent bi rek lañ koy teg su naa yonent bi rek la topp dégg nañ ñu ne euh, suñ maam Cheikh Omar euh, Cheikh Omar Touré radiallahu taala anhu bokk ci xaas yi dégg naa ci mag ñi nett ne dafa wax ne bu ma gisoon benn bés sëriñ bi mu teggi tànkam ci sunna rek bés boobu laay tàqali ko ñi ne Seyda Ali Cissé radiyallahu anhu wax ne bu gisoon sëriñ bi ci dundam mu uuteeg sharia daf koy bàyyi ba mu ñëw mu laaj ko mu def ko hmm. waaye ñoom ñëpp daf leen a tontu daf leen a wax leen ne leen da wax leen ne leen wasaani ilaaye nafsiya dahra la ura aminun ila ma laysa fi shar'i nee na yàlla ñoŋee na suma bakkan ba nga xam ne jamono lu mu yàgg-yàgg dooma gis mukk may uuteeg sunna yonent yàlla muhammad sallallahu sa wa sallam moo tax sunna soos nag ci la yaree ay taalibeem wax ne ne bi zahiri shaari nuuril mubin rabbi salikina bila kaddim wala riyab kon ñu ngi ndokkeel Mawlana Cheikh Alhaji Ibrahima Niass ci weeram wi nga xam ne ci la juddu muy weeru ngëneel mm. loo xam ne yàlla moo ñu ko jagleel kon nag ñi ngi sant bu baax waaye ñun taalibe yi nañ sant yàlla ci xéwal yooyu yàlla jox mm-hmm. ñi ngi ñaanal mboolem taalibe yi mm-hmm. bu kenn tardé Taïba Taïba moom lañ war a gën a fonk ci lépp lu ñu war a fonk rek Taïba lañ gën a war a fonk ndax ci lañu yàlla mayee ki gën ci ñun muy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu feet yi ñuy feetal yépp ñin ñi nga xam ne ñoo askanoo ci bàyyi bi ci gën a màgg rek mooy feetal juddoo Mawlana Cheikh Alhaji Ibrahima Niass kon taalibi yëpp ñu ngi leen fay oo ñëpp nañ dem bu kenn tardé bu ci bu bu nit amoon ngànd sax dégg waxi Cheikh Mouhamadou Lamine li Baaba Lamine wax di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam may ko wér li mu wax ne kenn warta tardé tay ba ni ngeen ñëw ku ñëw sa aajo dana faj kon loole war naa tax ñëpp dem ñëpp bépp jullit nag war naa dem tay ba ñesee te borom moo waxoon bu yàgg ne wanfauna jamia man xasadani yow yàlla yàlla nga jëriñ képp koo xam ne jublu na ma fii ci Taïba ñëwal na ma fii ci Taïba rek yàlla na nga ko yàlla nañ ko yàlla na nga ko jëriñ te nag ñaanal ajir fayuda wal ilmi ah wal li zumrati wa adibanna eh, wa ki ki wa adibanna al axlaaqi waaye ñaanal na yàlla nga bëbbal ci ñoom xam-xam yàlla nga bëbbal ci ñoom wërsëg te yàlla nga sellal seen ko loolu yëpp ñaanal na ko ci képp koo xam ne yaa ngi ñëw tay kon bu kenn taari tay ba ñu ngi dénk taalibe yi ñu ànd ak yar bu ñuy dem nga xam ne ñi ngi fekk ji sëriñ bi nga xam ne moo ëpp yar ci àddina sëriñ boo xam ne moo gën a baax sëriñ la boo xam ne képp ku ko dikkal sa aji yëpp dana fay Seydou Aliou Cissé wax na ne radiyallahu di tagg baay ba ci yàgg mi ne maa raaba man am makum perte képp koo xam ne jublu na la yow Cheikh Ibrahima Niass képp ku jublu Baay rek rek doo perte kon nag dem gi ñuy dem demuñ ngir ngir dara waaye dañuy dem ngir Tayba Niassène dañuy dem ngir këfa juddoo muy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ndax Tayba buñ ko bëggee buñ ko bëggee ba koy fuglu ba koy dem du dara moo tax lu dul lu fa bàyyi juddoo rek nga ne loolu moo tax ñëpp bëbb fu nekk ci àddina bi ñi ñaa ngi bëbb pour ñëw Tayba ba rawatina ñun waa Sénégal bu kenn tardé bu kenn tardé kon lii ñu ngi koy def ngir yóbbulu euh, Taïba Niassène nga xam ne suñ mbokk Sall Baye Barhama moo koy eh, def muy programme boo xam ne moom moo ko jël di ko def ngir sant yàlla ci may gi ñuy yàlla may baay nga xam ne tey képp kum yaakaar ne bu la tàllalee micro da nga mën a wax ci Mawlana Cheikh Alhaji Ibrahima Niass da nga mën a wax ci ngëneelal Taïba rek dana la tàllal micro rek jox la ko pour nga wax pour mu sant yàlla ci loolu kon ñu ngi ndokkeel Sall Baye bu waa di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam yàlla may ko wér média bi mu nekk di ci yëngatu e, ci sitam bi muy Barham Universel média ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na soppaliku télé ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi gërëm mbooleem àddina waaye ñu ngi gërëm mbooleem taalibe taalibe Baye fu ñu mën di nekk waaye ñu ngi ci jiital suñu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam. rakam Cheikh Mouhamadul Mahi ak imam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé ak suma sëriñ Cheikh Mouhamadul Atou ak mboolem jullit ñu ngi leen yàlla fu ñu mën di nekk yal na yàlla guddal seen fan may leen wér ñu ñaan yàlla tay ba giñ jëm. nga xam ne ajjuma bii di ñëw bu del seele na ko ñëpp waajal yàlla may nañu ngëneel mu tolloog ajjuma bés bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne gën ji bés boo xam ne jant ba dana fekk mooy bésab ajjuma bési ci lañu war a féetee suñ juddoog sëriñ moolaana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahima kon benn bu kenn tardé tolloog 22 mars ñu ngi ciy invité ñëpp mboolem àddina nit ak jinne ak ñëpp nañ ñëw ndax bu ñëwee mboolem ngëneel bu fa nekk rek yàlla dana ko bokk dana ko dana ko séddale ak ñun. ñi fa ñëw ñëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ dem ci jàmm mm-hmm. ñëwaat ci jàmm mm-hmm. lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu mm-hmm. ci barke bi nga xam ne moo juddoo ca Taïba Niassène te ba mu juddoo defar na lu bari fekkoon na lu yàqu mu defar ko fekkoon na nit ñi nekk ci lëndam soxla yàlla mu àgg leen ci yàlla maalam ci jaan ne afalat nujum huddan fa maa min muhtadin illa bi hadyin min abi ishaqi nee na biddi yu njub yëpp fay nañ lu dul biddi lu dul ah, koo xam ne mu ne kenn du jub rek lu dul ci jub ak abi isxaqa te mooy